moment bi dafa am ñu dem sama gaale famille taal ko instant yi gaale bi yëpp mi ngi tàkk gars yi ñi ngi asphyxié wu gaale bi ñi ngi yuuxu donc euh, je mets euh, l'opinion nationale et internationale à ce que ñu xam ni jamono ji am ay ay des bandits yoo xam ne dañ dem sama kër famille sotti fa essence taal ko donc dañ leen di jël en direct y a la police là-bas y a aussi les sapeurs pompiers ñi ngi sañu kër en fa kër famille Kaolack donc dañuy la famille directe ñu wax attaqué nañ sama famille donc euh, là, dugg nañ ci biir cœur gi Jules lan mo xew lak lan mo xew cœur ga. oui oui lan suis xew ci lay jaar naka taw feexi bàllee bu jàmm ñu dañoo tëddee di nelaw benn ay quatre quatre yu ñëw fii wërale suñ kër gi yëpp entouré ko ak euh, ay pono taal kër gi ba kenn mënut a génn kenn mënut a dugg xale yaa ngi nii avisé naa procureur woo naa commissaire bi ñëwaguñ woote naa gendarmerie tel guñ fi seen tànk sapeur rek moo fi tegagum tànkam pour fay ko malheureusement ñu ngi si biir nii xale yaa ngi si biir mënuñ génn Euh, xale yaa ngi tëju ci biir safara si mi ngi tàkk ci ci ci eh, kër gi. génn saxaar si waaw dañoo dañoo wërale kër gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp ak ay pono taal ko. palam baa ngi ne karo yaa ngi wàcc koñ baa ngi fees dell ak ay nit. d' accord donc waa sapeur ñëw nañ police ñoom ñëwaguñ. sapeur ñëwaguñ euh, sapeur moo ñëw police ñëwagul gendarmerie ñëwagul mari woo naa leen police ñu ne ma euh, ba tey tegu yéen tegu fi tànkam. waaw ah. yéen tegu fi tànkam xale yaa ngi si biir ñu ngi si en danger. donc police ñom nangu ñoo ñew quoi bu ngeen doon woy ba ñewu ñu woowaat nga leen est ce que woowaat nga leen tang o tànk guma leen da may wax ak yow nii sàpp dal mo fi ñew ñi ngi branché ndox mi di jéem fay koñ bi yëpp nga génn léegi lañ fi ñew garé sen kat kat soti ak kër gi yëpp wërale ko puno tal ko xalé yi mu ñëw génn ay nitam fi même répertoire répertoire wu leen kat euh, kat bi matricule bi kat kat bi amane bi ji passé matugul une semaine chaque deux jours benn quatre-quatre bu xam ne AD la AD j'insiste et je pèse bien mes mots benn quatre-quatre bu xam ne ñu ngi si bind AD chaque deux jours mi ngi ñëw suñu kër gi di gaare te am na barki ñëw na photo barki at démb ñëw na photo man pour man sax affaire antenne bi la chaque deux jours ñu ngi fiy ñëw AD bi ñëw nañ foofu di photo kër gi alors AD gis ñu ñëw nañ si suñ kër di photo tey tey ñu ñëw indaale ay pneu indaale ak gi mais ana présentement di fay. mais ana xale yi ana xale yi. xale yaa ngi si biir ni sapeur yi fay pour woo génn xale yi. ok ok léegi yow jëlal ma lépp en image c'est intéressant et important loolu lépp euh, aussi.